asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se moom lañ tuddee xam sa waay xam sa waay nag ki leen koy defal mooy Mame Fatou Kébé ma ci ànd ak yéen ñi nga xam seen tey bëgg ngeen a xam tey kan mooy seen waay tey nag seen waay mooy Tamsir Thiam Tamsir Thiam nag kenn dootu ko présenté ci fi nga xam se ne ci la nekk muy li muy yëngu muy or dinañ sekk ak moom ay waxtaan yu yaatu waaye laataa waxtaan yooyu tamit dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo nuyoo gi ñu koy topp ci 24actu point com ñu soog a dugg waxtaan Tamsir maa lay nuyu. ay di leen euh, taragal di leen sant yéen ñëpp. macha allah dégg ngeen ko ni mu daal di nuyoo Tamsir Thiam moo tey boo ñu doon wax euh, Tamsir Thiam kat mooy Tamsir Thiam. tëgg wurus rek ah tëgg boo xam ne bii moom li ma xam mooy or ak xaalis yooyu mooy seen métier moom daanaka li ñu gën a xam ci àdduna te jàng ko da nga xam ne depuis 70 ba léegi ci lañ ne loolu lañ xam mooy diggante or ak xaalis. ah ndax mën nga ñëw dikkaatal ci ban année ci nga daal di gane àddina. ñu ngi dalee àdduna 1965 ci Mbacke. ndax mën nañoo xam tamit fan mooy sa cosaan. Mbacke sama cosaan yëpp daanaka sama jeunesse lu gën a bari Mbacke laa ko defee ah. ngeen ko defee ndax mën nga ñëw dikkaatal tamit euh, ci euh, kañ nga dikk ci dëkk bu sell bi di Touba. man nag maa ngi jógee Mbacke euh, en 1980 81 voyagé 4 ans 4 <coughs> ans yi ma voyagé ba ma voyagé 4 ans aussi soo demee def 2 ans ñëw kii daanaka daal voyagé daal depuis 80 daal voyagé naa presque 5 ans 85 daal laa ñëw Touba. ndax mën nañoo xam tamit ci ban année ci nga daal di dugg ci li nga xam ne moo di njaayum or mi. jaay man bi ma commencé ubbi sama place bopp nag maa ngi ko ubbi 85 euh, waaw 85 ma jógee voyage waaw ci laa ko tijji. ndax mën nañoo xam tamit euh, ci kañ nga daal di installé wu ci marché Fass. man nag bi ma jógee voyage à euh, 1985 laa fi ñëw installé Touba fii ci boori banque bi foofu laa njëkkoon am place. après ma jóge ci boori place euh, boori fekk euh, jamono yi aussi ki ma yoon place bi ñu dem ba ci kanam mu xaw soxla place bi bàyyi 86 yooyu 86 ci laa dugg si ci biir marché bi. Ah, ba tey euh, Tamsir bëgg na ñoo tamit place yi ci ñaata place ci la toll ci jamono bi. place yi actuellement fi toll nii ñoom ñaari place la amee moom benn bi moo nekk ci 28 bi sama doom moo fa nekk Cheikh am amoon naa benn place nag bu ma njëkkoon a tijji boo xam ne bii sama yenn xale ñoo fi nekkoon quoi boo tourné ci route Ndiobène bi mm-hmm. waaye boobu dañ ko mujjoon tëj ndax dañoo demoon bi ci biir liggéey bi xale ñu fa bàyyoon daal liggéey bi bëri ay yàqu-yàqu yu fa am daal. presque bi may am 5 ans lañ ma yóbbu boobu man xale bu tuuti laa juróomi at la boobu xaw ma sax dara daanaka man jaaruma fenn fu dul affaire bi sëriñ ñu jël sama benn frère jox ma ko bu nekk Mbàkke ma jóg ku ñuy wax ma jóg am ci moom laa nekkoon daanaka lu ma xam ci wàllu bijouterie bi foofu laa ko xamee ci moom ndax bijouterie bu mag la yore woon nag moom tamit foofu à Mbàkke fa lañ nekk 70 ba 80 def naa fa 10 ans daal bi defee 10 ans voyagé xam nga ko man sama yaay man doom la am ci doom bu góor aussi mënuma ko fee bàyyi di tukki ndax bu day wéet daal te sama sœur yi ñoom ñëpp sëy nañ moom doom moo desoon ci kër gi te moment boobu mënuma takk jabar ndax boobu xale la waaw loolu moo tax mënuma ko foon bàyyi dem. kon kooku nga wax moo la jot a jàngal métier bi tey ba nga mën di ko pratiquer tey. waaw mm-hmm. ah, ma jóg ci am waaw. waaw moom yaayam ak sama yaay ñu bokku ndey ak bàyyi quoi. waaw euh, Tamsir ba tey bëgg nañoo dikkaat ci or bi nga wax ñi tamit fan ngeen di jënde euh, or bi nga xam se moom ngeen di jaay tey. or bi moom euh, or bi moom presque dañuy jënd ci jigéen ñi léeg-léeg nga tëggal nit jigéen jox ko bisu comme par exemple tey nga ñëw jaaro yi nga takk nii ñu tëggal la ko nga yore ko ba ba jaaro boobu modèle boobu xewi nga ñëw jaay ñu ko keneen ñëw jaayaat ñu beneen bisu keneen ñëw jaayaat ñu beneen bisu keneen ñëw jaayaat ñu beneen bisu bu ñu ko dajalee ba mu mat 500 grammes wala 1 kilo. ñu reprendre ko changé ko yeneen modèle yi nga xam ne moo xew actuellement ñu tegaat ko ci marché bi noonu rek lay mën a demee or moom du yàqu. Euh, Tamsir bëgg nañoo dikkaat tamit ci or bi ban or moo gën a qualifié ci or yi nga xam si ne moom ngeen di jaay. am na 22 am nañ 21 am na 18 am na 14 ñeenti or yooyu daal fu ñu toll ni actuellement or moom am na 24 ba vingt 24 grade degré bi mais 24 bi presque duñ ko tëgg ndax day nooy kooku moom doon or bu ñu mën a liggéey quoi. maanaam euh, am na ci or yoo xam ne aussi dañ koy import dañ ko yóbbu du Dubaï fay ñu tëggal ñu ko loolu moo gën a bari nag fi mu toll nii actuellement ci liggéey bi waaw moo tax fi mu toll nii ñi woon ci taabal yi tëgg mënatuñ tëgg ndax bisu importé yi jigéen ñi Sénégal moom daa mel ne daal ñoom liñ am lañ bëggut mm-hmm. lu jóge bitim réew lañ bëgg mm-hmm. waaw loolu daal moom laa gis mm-hmm. Euh, comme tey ji or bi nga xam ne si ne da ne moo ci gën a nooy or boobu lan ngeen ci mën a def ci loo xam si ne da ngeen koy tëgg mu jariñ leen dara or bi gën a nooy boobu mooy 24 bi boobu la ñuy yóbbu moom la ñu moom la ñuy yóbbu Dubaay suñ ko yóbboo Dubaay léeg-léeg nga yóbbu cinq kilo wala 6 kilos ñu tëggal la ko yeneen modèle yu bees wala boo demee ñu essentiel la ko quoi nga fay main d'œuvre bi ni waa demee da ngay fay gramme 3000 wala 4000 ça dépend ci bisu bi nga soxla ndax bisu yi aussi yemuñu njëkk lu ñu koy liggéey ñoom am na yoo xam ne boo demee mën nañu la ko liggéeyal ci ñoom gramme 2000 francs am na yoo xam ne mën nañu ko liggéeyal 3000 am na yoo xam ne gramme 4000 nañu ko liggéey quoi mi ngi mel ne comme ñaw rek am na ñaw yu seer am na ñaw yu yomb loolu or bi aussi noonu la mel am na bis yoo xam ne day seer am na bis yoo xam ne day yomb. Mm-hmm. ban moo ci gën a yomb. non ci façon liggéeyin bi lay doon mi ngi mel ne par exemple tey ñaw xam nga ñaw bu ñu amul brodé xam nga comme amul ay yenn garniture yeeg yooyu muy ñaw bu simple. am na ci ñaw yoo xam ne mën nañu ko ñawal 3000 francs wala 4000 am na ñaw yoo xam ne ba amul 15000 duñu la ko ñawal waaw or bi aussi liggéey bi noonu li ñuy liggéey noonu la mel. ba tey eh, eh, Tamsir bëgg nañoo xam tamit ndax or dinañ gis léeg-léeg dafay faral di yéeg léeg-léeg mu daal di wàcc euh, fi mu toll nii fan la toll ci yéeg ak wàcc. waaw or moom ci marché mondial bi moom mook pétrole ñoo yem day jóg di wàcc ndax ci biir koor gi rek ñun ñu ngi doon jënd gramme 22000. kilo or bu ne masalan bu ci gramme bu ne 3000 kooku 3 millions la 1000 grammes boo ci tegee gramme bu ne 3000 kooku 1000 grammes kii la euh, kii la 3 millions la loolu kenn du ko xep ndax kooku te or ay ñiy voyagé booy dem il faut nga yóbbu di kilos wala nga yóbbu cinq kilo wala 8 kilos am na ñuy yóbbu sax ba 40 kilos ba 20 kilos cent dépend ci sa quantité liggéey fu mu toll rek waaw dakaar am na ñoo xam ne ñii sama xarit yoo xam ne ñun dañu ànd di voyagé am na ñoo xam ne ñii léeg-léeg euh, danañ yóbbu ba 20 kilos cinq kilos dem liggéeylu ñëw indi di jaay nag ñi ne ci sous région yi léeg-léeg kenn ñëw jënd cent grammes kii ñëw jënd cent grammes kenn ku ne sañ jaay fu mu toll rek te am na jamono yi may door a ñëw fii ay 89 daana fi andi ay par 5 kilos par par mois waaw ci biir Touba 5 kilos cinq kilos or 6 kilos par mois daanaa ko jaay. mu mel ne tamit euh, daal dinañuy nemmeeku woon ci jamono yi ca ginnaaw ak euh, càcc goo xam si ne def nañ la ko ci sa ma ci or bi la xawma ci xaas bi ndax loolu tamit mën ngañ cee dikkaatal aw jamono ci ginnaaw moom sàcc nañu fi càcc gu métti koo xam ne gi def nañ ci lu nekk ah. def nañ ci lu nekk pour kii waaye xam nga lu yàlla dogal moom mënoo ci dara ndax bakkan moo gën a forte sin borom da koy jël mhm. waaw loolu am na ndax ba tey tamit loolu xaas boobu yaa ngi koy topp ba tey wala waaw mais topp boo xam ne xamoo ñu ko jël aussi xam nga tamit euh, am na loo xam ne li moom bu bu génnee say loxo ah buy man de li may ñaan mooy su gënee ma gis ko su gënut it ma ñaan yàlla mu dem rek waaw ndax bari la lu nit di yor di liggéey di ko denc te fekk na yow du loo war a jëriñoo daal. ndax ndax mën nga ñëw dikkaatal ci xaas boobu ci ñaata la toll. ah bari woon na nag ndax dèjà li ñu fi jël war na mat 15 kilos 15 kilos boo calculé kilo bu nekk 30 euh, millions 450 millions lay war a doon. lañ ko daal di jëlee. waaw maanaam jël nañ fa 15 kilo or ci ci place bi ndax dañ ko informatiser woon ci machine yi lu ñu jaay aussi dañ koy man loo dugal ci machine dala koy moyal ci stock bi ndax presque ba ñu fay jël ba fay jël boobu presque 20 kilos nga fa woon xam nga benn ay 18 kilos daal nga fa woon bi ñu defee calcul bi lañ fa bàyyi dafa tuuru ci biir rek yooyu ndax dañ doon jël bi ñuy jël xam naa am na bruit bu ñu dégg bi ñuy daw am na lu sotteeku ci biir quoi te xam naa ne mënuñu woon récupérer mënuñu woon pour jël ko man bi ma tijjee bunt bi laa gis ne am na lu tuuru foofu ma ramassé yooyu yëpp avant nit ñi ñëw ma tëj ko dem def de sama déclaration ci procureur bi nekk Mbacké après moom moo def alerte fële commissariat bu tuubaa après ñu ñëw def constat bi foofu boobu ba léegi nag ñoom ñu ngi toog di déglu daal mais enquête bi daal déggaataguñ ci dara boobu ak léegi. ndax xaalis bu mel noonu tamit bëgg nañoo xam Tamsir ndax mën nga koo dabooti wala. ah de loolu moom ci loxo yàlla la rek loolu moom yàlla moo xam <laughs> xam nga ni ki moom yàlla moo xam lim la war a jox ak lu mu la warut a jox loolu moom moom moom neexul xam ko xam naa ni ñu ko mënoon a amee ci bu njëkk moom ni liggéey bi doxee woon léegi liggéey moom doxeetul noonu te booba mu fi nekk booba presque man dong maa fi nekkoon ci xale buy jaay or bu masaan xëy sans place day fees dell boo xëyee balaa 3 heures wala 4 heures da nga jaay 5 te léegi loolu mënatoo ko am. léegi mën ngaa xëy suba ba ngoon jot sax doo jaay cinq cent mille wala quatre cent mille non nit ñi xaalis bi ñu amoon lañ amatul waaw xaalis bi ñu amoon moom lañ amatul kenn ku nekk lim mënoon mënatu ko ci jamono ji ndax bu njëkk euh, booba euh, wéet naa fi bariwuma fi woon ñu ma fi nekkal léegi li ci nekk tamit maanaam bijouterie bi bari na ay trois cent et quelques bijouterie mi ngi biir Touba temps ñu mujj def seen recensement ci wàllu bijouterie yi nga xam ne am na benn association bu ñu waroon formé recensé nañ fi 300 et quelques bijouteries xam nga loolu du caaxaan te kenn ku nekk danga jël sa wàll. Tamsir bëgg nañoo xam tamit eh, gis nañ ne jafe-jafe yu mel noonu dañuy nemmeeku ngeen faral di ko dund loolu tamit ban jàngat nga ci daal di amee. loolu ñun mënuñ ci am benn jàngat xanaa jël si ni si ni matuwaay rek maanaam jéem a sécuriser ndax maanaam ngi nii dama mujj dem jël ay benn assence jël fa 5 éléments pour ñu assurer ma sama bijouterie te xam nga loolu tamit métti na boo bëggee jël ay éléments yoo xam ne chaque jour chaque fin du mois. kenn ku ne da nga ko fay quatre-vingt mille wala quatre-vingt-cinq mille xam nga loolu déjà xaalis la. Hmm? ndax loolu mi ngi leen di sécurité wala. waaw agence yi rek lañ mën a dem de jël ñi nga xam ne agence comme bu ñuy banque yi ni ñuy jëlee rek noonu lañuy ñuy jëlee nit ndax fi ne caw buntu kër am na ñu fa ne. ndax fi mu tool nii ñun ñu ngi sooraale ne boo yoree yenn budget yi tamit fi ne mën na buy mën nañoo ñëw sax conduire fekk la sa kër jël la laaj la caabi dem ne ñëwul tijji wala yu mel noonu yooyu on sait jamais da ngay calculer rek. boo gisee ma jël ay sécurité bàyyi leen ci buntu kër gi nii fii ne boo demee ca place ba am na ñeneen ñu fa nekk beneen bijouterie bi aussi am na ñu fay fanaan fi toll nii ñu ngi jël presque sept éléments yoo xam ni chaque fin de mois dañu leen fay waaw dañu leen kenn ku nekk da nga am quatre-vingt mille wala lu kopp waaw par mois. waaw am ak ñoom benn jafe-jafe ci fay bi. non dañ leen di fay ndax non boo leen fayul duñ liggéey ndax nit ki yor këram yor jabaram yor doomam kooku boo ko fayul du liggéey. loolu day arrêté. Tamsir ndax mën nga ñëw dikkaatal tamit ci emploi yi nga xam se ne tamit moom nga yor ci sa place ñaata emploi yi ci lañ toll. emploi yi ñu yor fi mu bëri na ndax boo calculer ñu euh, ay ay vingt cinq personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci ñun. waaw ñoo xam ne ñi kenn ku nekk salaire nga am. Euh, est-ce que tamit am ak ñoom ci benn jafe-jafe boo xam se ne tamit weer jot nga war leen a fay am ak ñoom jafe-jafe. non non non mosuñu am ñoom benn ah sama salarié yi ma yor de actuellement am na ñoo xam ne ñu def nañ fi plus de quinze ans vingt ans amul kenn koo xam ne fi mu toll nii de yoroon nañ ko xaalis fi mu toll nii. xam naa daal kuñ ci liggéey bala weer dee avant le 5 moom na jot sa xaalis suñu la mënta fay dañuy daal di arrêté ak yow contrat bi ñu def ak yow waaw. ba tey Tamsir tamit bëgg nañoo dikkaat ci li nga xam si ne moo di or bi comme ça euh, ni ma ko waxee woon sànq mu mel ne tamit euh, di nga ci gis ñeen ñoo xam si ne dañuy dañuy faral di liggéeyee ak i banque tamit ndax yow tamit fi mu toll bokk nga ci euh, kii comme ça bistier yi nga xam si ne dañuy liggéey ak banque. non man nag banque moom wax dëgg yàlla am daaw ma liggéey mosuma liggéey ak ñoom. dinaa ubbi fay compte nag di dafay viré ay xaalis wala yu mel noonu mais banque moom ba ma juddoog léegi ba suma faale 5000 non non non mosul am amul benn banque bu ne mas naa defal Tamsir benn kii moom mosul am man daal am naa fexe naa ba ñi may liggéeyal dakaar samay kilifa yoo xam ne yi fexe naa ba ñu am ci man confiance su ma demoon tey jii su ma soxlaa bisu valeuru 100 millions sax dinañ ma ko jox ma ñëw jaay la ma ci am ma jël la ci des ma delloo leen këyit sax duñ ko bindante waaw jëlee naa dakaar ci yoro lam 118 millions yoo xam ne bindante wuñ sax këyit waaw bindaluma këyit sax bu wane ne man mi yoral naa ko lii. waaw nga xam ne tey bu ma desee de woon tey moom dana mën a indi kayit boobu wane ne Tamsir moom moo yoral lii loolu sax suñ cee jaar. Mm-hmm. waaw dakaar man ñi may liggéeyal ñu ci bëri Dakar lañ ñes Tilène marché Tilène euh, ñu bari ak samay xarit yoo xam ne léeg-léeg ñu am marchandise boo xam ne dama koy soxla mm-hmm. mais nag li ma gën a ki ma gën a liggéeyal moom mooy Yoro Lam laa njëkk a liggéeyal bi may door a ñëw Touba mm-hmm. waaw Yoro Lam mi nekk bijouterie Aline Sitoé laa njëkk a ci wàllu bijouterie quoi. Ah, or bi tamit mu mel ne tamit eh, Tamsir eh, gis nañ nit ñi nee nañ tamit da ngay faral jënd or ngir denc ko sa xaalis ah, nga dikk di ko jaar eh, ñu lay damat prix bi lan moo waral ngeen di def yooyu. biisu moom boo ko jëndee xam nga li ma la ci wax moo ci nekk biisu bu ñu jëndee or gramme vingt cinq mille jël billet avion dem Dubaï tëggalu ko fay gramme bu ne trois mille ñëw fay dédouanement dédouanement ñëw fay dédouanement. fay sa hôtel foofu réservation yi nga def hôtel dagg sa billet avion un million et quelque kooku soo ñëwee il faut nga teg ko ci bisu bi bi ngay jaay waaw ndax fi ne tey par exemple wuy ma rek boo jëndoon ab appareil utiliser ko deux ans est-ce que boo delloo ci borom ak ki la jaayoon appareil bi dana dana jëndaat appareil bi mu la ko jaayoon non non waaye kon sax mu xaw a tane ndax da nga ciy gis yéen jaaykati or yi da ngay dem ca tëgg bee dem ci tëgg bee li ngeen di eh, tey ji comme ça ni ngeen di tollantoo di kii da ngay gis koo xam se ne nga naan boo boo ko jaan sa or sax da rey sa bopp eh, mu nekk loo xam se ne lu doy waar te amaana maanaam bu ñu ko dee jënd yéen dafay da ngeen di xam ne leer na ne or dafa cher eh, te teew da ngeen ñuy jaay prix yoo xam se dañ ko nangu léegi tamit nit ñi tamit ñoo ngi laajte loolu lan moo waral prix bi moom maanaam or moom soo il faut boo ko jaayee da ci am xaalis mais ku la wax ne danaa la ko jaay soo ñëwee ma jënde ko li ma la ko jaayewaatoon loolu day wax lu ko neex loolu amul fenn ndax li ñuy liggéey ñun ci la ñuy ñëpp ci la ñuy dund bu fekkee dëgg àqulaay rek nga bëgg a dégg or moom amul benn yi boo mën a dem mu jaay la ko nga dem takk ko sa xew wala nga utiliser ko ba xew yi jàll nga ñëw mu joxaat la sa xaalis loolu taxul tëgg yi liggéey waaw loolu moom ku ko gëmit gëm nga lu nekkut. <laughs> dégg ngeen ko noonu dégg ko dégg nga ko Tange dégg ngeen ko fi ma ko fi <laughs> ma ko bëgg daal di jaar bëgg na ma laaj tamit mu mel ne tamit or ñeen ñi tamit nee na njaayam or amul maa comme que yow ci nga nekk di ci yëngu ndax mën nga ñëw di kat ci lool si am na pertement ndax man ngaa jënd or fi mu toll nii gramme 30 mille or bi daanu waaw ndax maa ngi nii fan yi ci koor gi bi Covid bi commencé ak léegi xam nga kenn voyagé wul dañu tëj vol yi kenn voyagé wul kenn demul fenn man maa ngi doon jaay gramme mille jaay nañ fi lu jege deux mille et quelques grammes xaw ma trois mille et quelques léegi bi ma téléphoné Dakar ñu ngi ne gramme euh, trente deux mille la ñuy jaay léegi yow kilo boo jaayoon da nga ci teg deux pour amaat kilo boobu te yaa ngi doon fay say employé yaa ngi doon fay sa location place yaa ngi doon fay say courant di taal say gasoil di fay say employé di def lépp sa employé rek da nga fa fay plus de presque un million un million cent par mois. kon or comme ça li ñu bëgg a wax mooy même or bi bu ngeen ko jëndee tamit boo dajanteeg mu daanu tamit kon dafay métti ci yéen. ah waaw day métti da ngay perte ni ngay gagné ni ngay jëndee mu jar gramme 25000 mu xëy da nga dem gramme 30000 nga gagné ci lu bari. noonu nga mën a dencee lu mat 10 kilos wala 15 kilos xam nga am na jamono yoo xam ne bi ñu tëjagut place bi ñu fa dencoon 18 kilos. 18 kilos yooyu euh, su or bi benn gramme bu mille francs rek bu ci tegee 18 millions la. su manqué gramme 1000 francs rek perte nga 18 millions noonu la or di doxee. perte googee bu ngeen ko defee tamit maanaam ban gaañ gaañ bañ gaañ lay am ci yéen wala tey ji amul leen loo xam se tey ji bu ngeen ko jëndee mu xaw a euh, yéeg mu xaw a maanaam wàcc daal comme di ngeen ko mën a jaay wala. non moom àdduna moom affaire or moom gañee ak perte ci ne mën ngaa jënd fi mu toll nii 20 kilos tey par exemple mu xëy gramme bu nekk euh, mille francs rek bu ci dañee. vingt millions ngay perte dangay ngay yeewu rek perte 20 millions yeewu man ngaa yeewu tamit ñu ne la or bi jóg na mu leer na ne 20 kilos yi nga yoroon 20 euh, millions tege na ci. Euh, Tamsir bëgg nañoo dikkaat tamit nga daan ñuy dikkaatal ci li nga xam se ne moo di tëgg taabul ak tëgg or bi ñu wax lan mooy seen différence. noo amul benn différence ndax tëgg taabul moom balaa ngaa tëgg bee def benn activité ci àdduna ci tëgg taabal taabal. tëgg taabal ni ñu ko waxee am na ñoo xam ne duñ dégg duñ dégg lan mooy tëgg taabal tëgg taabal mooy taabal boo tiim di ci tëgg taabal xam nga booy tëgg da ngay toog tiim taabal ji loolu mooy tëgg taabal moom la wax tëgg taabal tëgg booy tëgg toog ci suuf di tëgg il faut nga tiim taabal di tëgg tëgg boobu nag li tax ñoo ñu am problème mooy bisu importe yi ñuy indi moo leen xawal laal ñoom xale yi ba kenn mëntul tëgg loolu waaw ndax fi ne li ñu waroon a tëgg fii moo li ma leen wax ne maanaam yéen li ñu am li ngeen am moom ngeen bëggut te comme ñun dañuy liggéey faw ñu wuti li ngeen bëgg indil leen ko. kon boo ñu doon wax importe bi moom la nit ñi gën a bëgg. ah yaa ngi ni jaaro yi nga takk lan la. xam nga fi mu toll yow fi ne takkoo dara loo xam ne lii fii lañ ko liggéey ci réew mi. sax nga wax loolu. lii nga takk du lu la. montre bii nga takk importe la jaaro yi nga takk importe la man gisuma loo takk fi mu toll nii loo xam ne lii fii ci ñun ñoo ko liggéey waaw léegi mën na ma suwaa loolu te nit ñi maanaam ñëpp bokk ñëm kenn ku nekk sa suwaa sa bii nga amee nag presque ñoom jigéen ñi ñëpp moom lañu amee jigéen ñi bu njëkk sax bi ñu yeewagut euh, bu ñu sañoon jëkkëru moodu moodu la ñuy bëgg bañ demee ba xaw cee dee nag lañ ko door a commencé bàyyi maanaam jëkkëru importé daal boo xam ne bi ma nga Italie wala France wala mel noonu waaye boo ne jëkkër boo xam ne ma nga ci daara ji jàngale alxuraan ak yooyu moom il faut ñu ne la xaar ma xoolaat ba xam a may la nekk nga ne maye leen boo boo ko gisu sax nga ne maye mais nag su fekkee dañu la ma nga ca ginnaaw xel comme di jàngalee alxuraan nga ne noo xaar leen ba xam ma xoolaat ba xam wala nangam nangam loolu moom jigéen ñi maanaam loolu moom la ñuy dund daal maanaam loolu kenn mënu ko dund ci ñoom Euh, mu mel ne Tamsir dégg nañ leen tamit ngeen di wax ay jafe-jafe pour ci ñàkk or bi or bi ci jamono biñ toll ñàkk dox goo si ne mi ngi koy ñàkk dox est liggéey bi ba tey fi nii na meloon ak léegi defu différent wax dëgg yàlla rek la ñuy wax nam daan doxee doxeetu ko moom doxeetul noonu doxeetul noonu ndax nit ñi xaalis yi ñu amoon bu njëkk amatuñ ko bu njëkk da nga daan xëy di jaay dix million neuf million par jour loolu xam nga ku daan jaay neuf millions dix millions par jour boo demee bay jaay ay cinq cent mille wala ay un million par jour kooku liggéey ba te te léegi la sa frais gën a bari ndax booba frais amuloo emploi yi nga yore léegi yoroo koon te booba nga ëppoon looy gañe ci léegi ndax booba benn cinq cent grammes boo ko xëyee jaay ci journée bi gramme bu ne nga am ci mille cinq cent danga am sept cent cinquante mille ci jour bi bénéfice moom nga daan am bénéfice 750 000 800 000 1 million par jour da nga ko daan am ci or bi waaw waaw ci benn jour bi moom nga daan gañe léegi mën nga mën a gañe sax presque 100 mille francs par jour mënu ko gañe ndax fi mu toll nii or bi ngay jëndee 32 000 33 000 nga koy jaay léegi il faut nga jaay 64 000 pour mën a am 2 000 francs bénéfice te bu njëkk yaa ngi doon jënd or gramme 3500 jaayee ko 5000 3500 dañu daan jëndee ay 86 87 boobu ñu ngi jënd gramme 3500. di jaay gramme 5000. léegi yow dèjà gramme boo jaay am nga 1500. léegi 500 grammes da nga ko doon xëy di jaay wala 800 grammes ba 1 kilo da nga ko doon jaay boo ko jaayee gramme 1500 dèjà am nga bénéfice su 1 million 500 par jour. Euh, mu mel ne tamit euh, gis nañ tamit ne nguuru Sénégal comme tey jii jafe yi nga xam si ne moom ngeen di àndal ci liggéey bi ba pare gis nañ ci ndooni léegi ni mu xaw a taxawee ndax euh, nguuru Sénégal am na benn yëg-yëg ci yéen wala. waaw ñun dañu ngi jéem a def ay daje ñu ngi forme ay association bijouterie bi ndax bu njëkk tamit maanaam yi tax état bi mënuñu woon a xam wala kii kenn ku ne da nga toogoon fa nga toog rek liggéey say liggéey léegi nag bi ñu demee ba xam ne affaire yi moom mi ngi commencé am problème fi ni il ñu jéem a dajaloo euh, pour def benn former benn mouvement boo xam ne bi euh, danañ ci mën a booloo pour mba xam nga mbooloo mooy doole mm-hmm. waaw il ñu booloo pour former benn association déjà am na ñaari association benn bi tëgg taabal na beneen bi ku ñuy wax Ibrahima Niang sama benn xarit bu nekk Pikine doomu Pa Sala Niang moom mooy président bi association boobu waaw. association boobu fan la nekk. mi ngi dakaar pikin waaw. kan moo ko jiite. Ibrahima Niang Ibrahima Niang moo ko jiite. ndax yow yor nga ci pass wala. waaw man maa leen représenté fi Touba am naa fi am na fi am nañ fi représentant maanaam ci représentant yi nekk Touba ci laa bokk. Hmm. Tamsir Thiam la woon moom la ñu àndaloon suñu jotaay mu mel ne nekk nañ ci cëppaandaw gi lan ngay tàggoo ak askan yoo xam si ne ñoo lay topp ci 24actu point com. Ah, di leen sant rek di sant waa Touba di sant ñëpp di sant sëñ bi di ñaanal sëñ bi mu yàlla may ko fan wu gudd moom mi nga xam ne mun Mountakha mi ñu boole jiite ñun ñëpp di doon seen kilifa ah ñun ñi ngi tënku ci ginnaawam rek di yaakaar sañ Touba daal waaw mm-hmm. ah, ñun daal ñu ngi yaakaar sëñ Touba rek Euh, waaw dégg ngeen ko noonu Tamsir Thiam la ñu àndaloon ci jotaay xam sa waaye dégg ngeen ko ni mu daal di répondre ci li nga xam te ne moo di suñu question yi émission xam sa waay ni woon naa nii la lay daal di demee képp koo xamante ne yaa ngi réew mi te amal sa réew njëriñ bu nekk dinañ la dugal ci xam sa euh, ci biir jotaay bi nit nga xam ñi a euh, bu baax di ko gërëm ginnaaw bi ñu ko invité ci jotaay bi euh, gis nañ ni mu xam se ne yomb te ne xam na tamit seen i yitte fi mu daal toll ak yitte jamono ji loolu lépp tamit ñu daal ñu koy nangu ñu daal def émission bi ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant yéen ñoo xam se ne yéen a jël topp ci point com di sant sama mi nga si tamit moo jëmal jotaay bi di leen jox dox daje ci beneen jotaay